non non Omar Sow daa xaj ci kenn murit la murit la <laughs> non Omar Sow maanaam ndaanaan la barki Serigne Bamba salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal gars yi maa ngi leen di siyaar maa ngi leen di bégee maa ngi leen di jox seen wàccuwaay ah tey nag damay santaat yàlla jullu ci yonent bi sant samay ñaari waajur sant xaadimu rasul mi nga xam ne chaque jour ma wax leen ni xaadim rasul mooy lépp chaque jour ma wax leen ni ku ko yaakaar doo torox chaque jour ma wax leen ni xaadim rasul moo moom lépp te duma ci tay fan yi paase wax naa leen ni Serigne Touba xaadim rasul kenn la te ku toppul nit doo topp yàlla sunu borom ku santul yàlla doo sant ku santul nit doo sant yàlla loolu yàllaa ko wax ci alxuraan te duma tàyyi di ko wax fan yi paase gis ngeen kooku ñu naan Baye Cheikh ngeen naan ko xale bu ndaw gis ngeen ko fan yi sama mu génn ci snap bi ne oto rek la bëgg muy ndaamaar ne dafa jël taxi ba sonn bi mu ko jooyee ci sama oto ne mi ngi xaar Serigne tubaa Xaadim Rasul may ko oto kon Serigne tubaa dogal na ko ni ko Serigne tubaa dogalee mooy caabi baa ngi nii yàlla may na ko oto ak yonent beeg Serigne Touba Xaadim ci kan la ko jaarale nag laay wax. yàlla ak yonent beeg Xaadim Rasul may na Baye Cheikh oto Baye Cheikh fi mu ne nii yàlla may na ko oto oto baa ngi nii ku ñu naan Omar Saw murit Omar saw mi nga xam ni Serigne Touba moo ñu boole mu nekk sama xarit nekk koo xam ni sama mag la nekk koo xam ni Serigne Touba rekk a tax muy def Omar Sow may na Baye Cheikh oto oto baa ngi nii bees tàq Omar Sow may na Baye Cheikh oto 4-4 la ko may Omar Sow may na Baye Cheikh oto oto Baye Cheikh baa ngi nii rafet bees tàq Omar Sow may na Baye Cheikh oto Omar saw may na Baye Cheikh oto oto baa ngi nii automatique la. mutation complet lépp complet Baye Cheikh am na 4-4 Omar saw may na ko oto caabi baa ngi nii ci man Baye Cheikh la ñuy xaar mu jël si oto bi boobu ba tey maa ngi koy woo woo naa ko waa mbokkam yi wuy si nañ ma teraanga kenn du ko xuntoo te jamono jii ñu ne dafa toll ci jamono joo xam ni looy def rek day fës ndax ñi nga xam ni defuñu gars yi maa ngi leen di siyaar maa ngi leen di bégee noonu la demee Omar saw may na Baye Cheikh oto may na ko 4-4 golf mi ngi nii ma téye di xaar baay seex mu ñëw ma jébbal ko caabi yi mu dem te mu jik ko te yàlla defal ko jàmm man ci loolu laay dox loolu laa xam yéen a ñëpp jàmm képp ku ma xam ni sama nit nga képp ku ma xam ni gis naa ne lu baax rek ngay def di nga fës fii ci man ndax man kuy def lu baax rek laay fësal waaye pas kuy def lu bon Omar Sow sagalati nga ma sagal nga yoonu murit teral nga ma teral nga yoonu murit ndax xale bii ñu naan Baye Cheikh di jàngi xasida yi sëñ Tubaa yi subaak ngoon guddeeg bëccëg nga teral ko nii yàlla na la sëriñ Tubaa Xaadimu Rasuul fay sëñ Tubaa rek sëñ Tubaa mi tax nga def yàlla na la fay barke Cheikhul Khadim mi oto bi yanj na rafet na yàlla na la jik yow Baye Cheikh ci barkeb Cheikhul Khadim jërëjëf sëriñ Tubaa jërëjëf jërëjëf sëriñ Tubaa kenn du sëriñ Tubaa mu Rasuul Omar Sow yàlla na la sëriñ Tubaa Xaadimu Rasuul fay jaajëf ah Baye Cheikh nii lañ toogee woon sama oto tey nag maa ngi nii ci sa oto ah xol sedd na nii nga toogee woon ci sama oto waaye tey maa ngi ci sa oto xanaa sant nga Serigne Touba bu baax de macha allah macha allah ah Baye Cheikh a ngi nii ah Baye Cheikh daal Serigne Touba ah man de ah, ah. macha allah. ka amiin yaa rabbi amiin amiin del yéegal veer yi nag ndax ndax ndax ndax ndax bi day takk sak instant yow waroo di dawal oto bu mooyee di dugg ah, léegi daal dinañ la solal fii essence ba fees del nga dem te essence bi saa yoo yégée mi ngi wàcc rek woo ma incha allahu rabbi kenn du yow taalibi Serigne Touba bi yaa na ah sëñ Baye yaa ngi may snap maa ngi lay snap. moom daal bég naa. bég naa ba fu bég yam. Omar Sow daal du ñu def lu dul bàyyi ko Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul rek. mu gërëmal ñu ko santal ñu ko ñaanalal ñu ko. waaw bég nañu lool bég moom lu nit defal rek Sëñ Tuubaa la ko defal. waaw kon bég nañu lool waaye. nañ dem ma sol ci essence dañu sol ci essence ba mu fees. après nga soog tegu ci yoon bi ci jàmm. dama jàmm barke Cheikhul Khadim